de, de, de, de l'Europe. Sadio selon les premiers résultats ñi nga xam ni ñëw donc Sadio Mané devrait être absent pour quatre à six semaines. Ah. devrait être absent pour quatre à six semaines. leneen li nga xam ni mën nañ ko dolli moom mooy euh, Sadio Mané sauf miracle de la médecine, il ne va pas participer à la Coupe du Monde. Hmm. Selon les premiers résultats. Hmm. Des résultats officiels, voilà. les premiers résultats de la, médecine. résultats yi mu jot a def. Hmm. diggante selon mes sources. yoo xam ne ce sont des sources fiables et généralement bien informées. il devrait être absent pour quatre à six semaines. Mmh. Il devra cependant faire des résultats complémentaires entre aujourd'hui et demain. Hmm. mais ñu jàpp ni sauf miracle de la médecine. Hmm. blessure bi nga xam ne moom am na ko. Hmm. bi nga xam ne jot nañ ko gis léegi nii nii nii nii nii ci kii ci li nga xam ne mooy résultat yi mu jot a def. donc Sadio Mané nañu génn suñu xel ni day bokk ci coupe du monde. donc c'est une blessure. kama jox tamit information bi moom euh, waxtaan nag ki nga xam ne moom moo di agent bu Sadio Mané mhm. effectivement il a confirmé que sur la base des yi ñu jot a am nii Sadio du mën a bokk ci coupe du monde bi mhm. sauf miracle de la am na am na ñi nga xam ni peut-être daañu daañu am blessure yoo xam ne doo xalaat bi sax daañu mhm. ñu dellu nga am peut-être benn malaise cardiaque ñu yaakaar ne dootul nga dellu si waat ba sax ñu lay convoqué waat ci coupe du monde bi et tout mhm. ni bëggoon ko partager ak ak ak yéen bien sûr mais on attend toutefois mhm. on attend euh, la la la déclaration officielle du Bayern Munich mhm. et puis tam même bu ñu ko defee tamit l' équipe nationale va dépêcher sur place. pour contre expertise bi mm -hmm. staff médical et tout. ça a été même dit tout à l'heure ça a euh, par le président Augustin qu'on a eu à l'antenne d'ailleurs tout à fait ñu ñu ñu exactement euh, ndagam vraiment ñii li ñu wax am na mhm. parce que ça nous est mhm. lors de la kii quoi préparation kii bi quoi nu mhm. coupe coupe deux mille quinze. à El Jadida. Mm -hmm. bon Sadio Mané blessé na blessé wul blessé blessé donc entre les deux staffs médicaux. Mhm. ñoom ñooy waxtaan xool exactement ban décision officielle la ñuy jël. voilà voilà waaw mais daal loolu daal laa bëggoon partager ak yéen en attendant ñu xool nag évolution dossier bi. bon justement on va faire des examens complémentaires. les heures qui suivent après ñu exactement lan lan lay mhm. sera un coup dur pour euh, l'équipe nationale. bu par extraordinaire bu joué mondial bi est que il sera à pour cent bu fekkee tamit jéewu ko tamit boobu tamit bon c'est war nga wax kat nga bañ ko wax tamit bon mhm. c'est en fait ce sera une grosse pour l'équipe nationale voilà voilà et bon on le souhaite pas mais mais au cas où bu Kambel peut-être ñu gàttal rek au cas où euh, Sadio Mané est forfait euh, quels devraient être les réagissements yi nga xam ne moom la ñu war a a amal ci biir équipe bi pour remettre, disons, euh, l'équipe à euh, parce que tamit au-delà de, de, de l'individualité que nous avons, euh, le football, c'est d'abord un collectif. le football, c'est un collectif. Mais cher, mhm. Sadio Mané bu ñu ko amul ci équipe bi. Mhm. sur le plan mental sur le plan moral. Mhm. wax dëgg yàlla dana am lu bare bare bare bare li nga xam ne équipe. joueurs yi sur le plan mental dana desat fokk mu amaat nag ñi nga xam ne dañuy leen di ñëw delloo ci waxtaan parce que quoi qu'on ni ñu koy waxee actionnaire majoritaire la ci équipe nationale. Mm-hmm. suñu dernière performance yi nga xam ni. alhamdulilah. Mm-hmm. ñëpp ñu ngi koy waxantoo notamment la Coupe d'Afrique bi jël kii ñëpp ci loxo saajo Mané. Mhm. qualification coupe du monde ci loxo Sadio Mané. ok leneen ak leneen leneen et tout. donc vraiment day doon li nga xam ne. Aliou Cissé. Mhm. il est assez aguerri il est assez professionnel. pour trouver la la la bonne la la la la la bonne formule. voilà voilà Kambel vraiment merci en tout cas pour euh, toutes ces précisions.